lañu jullit chrétien jullit musulman dafay am solo fu ñu mënti nekk rekk li ñu doon ñu dund ko dama bëgg tàmbalee ci benn histoire bu ndaw boo xam ni dam ko dund ak suma benn xarit bu nekk États-Unis benn pitax la woon benn oiseau benn picc bu coincé ci ay fil électrique ñu mobiliser cet armée mobiliser ay ressources yu am solo bloquer circulation bi ay heures yi heure pour rekk mën a sauver picc googu xarit boobu ma àndaloon ma yéemu ci histoire bi mu nettali ma beneen histoire mu ne ma moom il est dans le domaine de la construction am benn picc boo xam ne dafa defoon benn nid d'oiseau ci benn kër foofu ñu war a modifier kër gi dem laajte permis de construire ñu bañ leen ko jox administration bi bañ leen ko jox par respect pour picc boobu tegoon fa niyoom buggoon ko may tuuti ci ay délai mu mën a màgg éclore am une vie nouvelle may tàmmalee foofu ndaxte dama ko mës a wax nii Sénégal du développé wu mukk fekk ràññeewuñu sunu borom lim ñu may ci gisement yi gën a am solo c'est le capital spirituel bi mu may Sénégal te ñi may comparer su may comparer Sénégal maa ngi koy comparer avec les pays émergents les pays de l'Asie yoo xam ni seen économie ak seen lu bëri soubassement bi mi ngi nekk justement ce capital spirituel buy redéfinir seen rapport a beaucoup de choses seen rapport à la vie seen rapport au travail seen rapport à la discipline kenn bu xeeb loolu ndaxte président Habib Sy mi ngi koy fàttali sànq développement soo jàppee ni tali rekk la ak pont nga rocc ci loo xam ne mooy ruu bi mooy joxe sens li tax nit war a dund li tax nit war a xeex li tax nit war a fonder foyer su dee loolu ñàkk nga ko de vue tu passes à côté de l'essentiel et dina jafe lool ñu dund loo xam ne moom la ñuy wër saay yu mooy jàmm ma ñëw jóge ci picc ba ni ñooñu de ormal nañu lu day ni picc sakkatumaak doomu aadama sakkatumaak doomu aadama may évoquer fii sunu responsabilité su dee ñoom mën nañu tëj nit kaso ndax picc boo xam ni fonkoo ay droit am ndax garab boo xam ne dagg nga ko de façon illégale ñu teg la ay daan États-Unis laay wax de ku fa musul dem da ngay jàpp ni démocratie la ay pays yanki la lu la neex wax lu la neex def wante dem leen fa c'est des pays qui sont très verts où la dignité humaine est respectée où l'arbre est respecté où les animaux sont respectés ma ñëw ci suñu responsabilité ce qui est en train de tuer le Sénégal après Macky sàll ak gouvernement am lii gën a garaaw bi nekk di rey Sénégal mooy l'indifférence jàpp ni lakos mooy wax jàpp ni Pastef mooy wax jàpp ni politique yaay wax mu ngi rey Sénégal et jot na ñu ñëpp mu am benn sursaut ñu xam lii xew kenn gënul politicien kenn gënul yeneen acteurs yi kenn gënul pêcheur kenn gënul keneen kenn gënul sa moroom wante dama bëgg ñu natt yéene joo xam ne am nañ ko yéene ji mooy ëllëgu Sénégal ëllëgu say doom képp koo xam ne nee nga dama bëgg nekk candidat dafa am loo xam ne mooy sa programme mooy sa gis-gisu àdduna mooy sa gis-gisu Sénégal kon di ko waxtaanee di ko fësal di ci xeex ñu tëj la ci kaso dama bëgg sénégalais yëpp natt niveau sacrifice boo xam ni politique yaa ngi koy def ma ñëw nag ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa nekk kenn ci doomu Sénégal qui est exceptionnel su ma nawlee la dama am parti ma am parti ñi fi toog yépp dañu am ambition am vision wante de Ousmane Sonko wax dëgg yàlla te damay kontaan tey waxtaan waxtaan ci ak yi li tax ma naw Ousmane Sonko lu tax mu war a nekk le candidat de l'espoir li tax tous les sénégalais doivent su mobiliser pour jàppale Ousmane Sonko sauver le soldat Ousmane Sonko. Ousmane Sonko jikkoom d'abord yàlla dafa def mu am tawxiid yàlla dafa def mu gëm boppam teg ko ci gëm bi mu def sunu boroom yàlla dafa def mu nekk un nëm boo xam ni c'est l'espoir qui l'habite nekkoon nañu fii assemblée nationale mu nekk des moments extrêmement difficiles suñuy waxtaan deux heures du matin la trois heures du matin la yenn saa yi su ma yëkkati suma téléphone yi damay wax ak moom ma ne tey jii je vais le trouver abattu ndax liñ ko teg wante sooy nee allo reetaan ak sourire moom la lay teeroo ba keroog sax chef de cabinet mi ngi may wax. ni bi mu demee nii hôpital ak liñ ko teg ak li mu feebar ak naqar gi yépp il a la force du sourire di ñu ñaax wax leen ak sénégalais yi nañu préparer wax leen sénégalais yi la victoire est proche wax leen sénégalais yi ni je suis debout Ousmane Sonko nee na en confidence te defe naa ni c'est même pas de la confidence wax na ko ñu bëri Moustapha su dee suma bakken da ciy des pour sauver le pays pare na suma bakken des ci Ousmane Sonko boobu li tax mu nekk un candidat important je ne parle même pas de candidature lu tax mu nekk un fils du Sénégal important qu'il faut absolument sauver mooy les qualités qui l'habitent vision bi mu am et lii may mun a wax sànq leader da ngay inspirer leader da ngay inspirer da ngay wax beñe nga tudd beñe le lendemain économie bi bouger mu indi koom-koom parce que leader bi wax na ko tudd na ko leader da ngay inspirer da ngay sol mbaxane ci suba sa ñépp ñoo xam ne mbaxane bu mel noonu la ñuy defar seen mbir baax leader da ngay inspiré nga ne xale yi taxaw leen xale yëpp taxaw Ousmane Sonko mooy nit kooku mooy doomu Sénégal googu te àdduna lii manqué lii manqué ci biir njaboot lii manqué ci biir entreprise lii manqué ci réew yi mooy am un leader qui inspire Ousmane Sonko. nekk na espoir parce qu'il a redéfini ses rapports ou les rapports yi Sénégal war a am yi Afrique war a am avec boppam définir rapport yoo xam ni Sénégal war na ko am ak jeunesse am définir rapport yoo xam ne war nañ ko am avec la monnaie définir rapport yoo xam ne war nañ ko am avec l'histoire avec nos partenaires avec nos alliés avec le monde entier bind na wax na xeex na ko et dans la dignité ngor a metti ngor te lii manqué tey ji ci àdduna lii manqué Sénégal lii tumuranke mooy éthique le monde est plus riche nga comparer le monde de 1960 ak le monde d'aujourd'hui mais on a multiplié la richesse mondiale mais de façon extraordinaire exponentielle Sénégal tamit noonu wante le problème le problème mooy la redistribution mooy l'éthique mooy le partage mooy la justice sociale foofu la dëkk yi tële foofu la Sénégal tële et quelqu'un comme Ousmane Sonko moment bi ko yàlla indi mu nekk une aubaine une opportunité une fenêtre d'espoir certains me disent mais Moustapha wala lu tax ngay wax waxu Ousmane tu n'es pas du Pastef tu as ton parti yow tamit defal na le ma ne ko j'ai pas un combat plus important que ce combat là que je suis en train de mener ma vie durant dama nekk ci éducation et là yàlla indi na un exemple boo xam ni d'injustice képp koo xam ne da ngay teg sa jë ci suuf képp koo xam ne da ngay dem église ma ne amul benn cas pratique bu ëpp lii et indifférence ça tue te borom bi day nattu askan day nattu askan day nattu les peuples ñii xam alxuraan nañ dem xool ñi xam bible nañ dem xool tous les grands prophètes ont été envoyés à des moments yoo xam ni l'injustice est là actuellement nag lii am jël kenn koo xam ne dafa am ay droit nga jël ko tëj ko kaso est-ce que notre fils mérite ça Est-ce qu'un enfant du pays qui a tant aimé son pays, qui s'est tant battu pour la vérité, qui s'est tant battu pour la justice, qui se bat tant pour la vérité, est-ce qu'il mérite ça Je ne pense pas. L'indifférence tue. Et le discours, moi, quand on enferme les vérités, di ko dugal ci ay organisation di ko politiser di ne lii fii la bokk fële la bokk dëgg yàlla la dëgg-dëggu yàlla la quand un tribunal boo xam ne yàllaa ko fi teg muy tribunal fële euh, euh, Ziguinchor ñépp ne lii mooy justice mu wax li muy wax Macky Sall bañ na du ko def looy toogati yow sénégalais looy ut looy yar sa doom looy dóor sa doom looy fëgg sa dënn ni yow gëm nga su dee lii mën nga ko seetaan lii ko ci journaux jël sa whatsapp xool retan commenté jàll l'indifférence tue ce combat est une épreuve pour nous tous ce combat li xew nii exige de nous tous du courage de la sincérité de l'honnêteté et je sais que les Sénégalais sont honnêtes et sincères chaque fois qu'il a été question de se battre ils se sont battus moo tax ñuy ñaan tey jii Lacoste di wax ni combat boobu au nom de la responsabilité bi ñu gàddu ñun ñëpp au nom de notre amour pour notre nation de nos à l'histoire dafa am loo xam ni mënta ñàkk il faut qu'on soit sur le terrain di lancer un appel à la mobilisation nationale dama bëgg qu'on retienne ces dates nos enfants reviendront sur ces dates damay faral di wax ni la conscience historique ku ko amul ñàkk nga lu rëy kuy wax tey te doo sóoraale di ëllëg li ngay wax dinañ ko tegaat ñàkk nga lu rëy cette conscience la di wax pour dans cent ans dans deux deux siècles muy am impact mu nekk dëgg tout le temps ku nekk war na lu say kaddu am portée boobu mobilisation nationale bi ñuy wax nii mooy mobilisation wu dëggu on ne se battra pas pour Ousmane Sonko on se battra pour le un fils du Sénégal on se battra pour la vérité on se battra pour la justice sociale on se battra pour que le président de la république sortant ak keneen kuy mënti ne mu xam ni sénégalais yi ñoo ko fal mu xam ni dañu am constitution dañu am ay droit dañu am noo xam ni noonu la ñu tëralee suñu fonctionnement daf ko war respecter moo tax ñu dénk ko li ko dénk mais nag lii commencé am dafa garal Macky Sall dafa commencé di foowee sénégalais yi commencé wu ko sax manque de respect bi dafa dafa jéggi dayoo ku wax ñu tëj la kaso kuy wax sax léegi mobilisation il faut nga gaawantu teg ci mobilisation pacifique ñëpp a ngi xool mais lu xew lu dal sénégalais yi ma ne dëgg dëggu yàlla la xale bu tuuti bu ma gis ci mbedd bi ñu koy def lu dul noonu ni ma taxawee nii wetu Ousmane Sonko laay taxawee ci wetam Ousmane Sonko ku ko gis teg bëtu politicien ci kawam tooñ nga ko ku jàpp ni militant wu la tooñ nga ko responsable Pastef la tooñ nga ko ndaxte jëmmam ëpp na loolu jàppee ko ni doomu Sénégal la jàppee ko ni dafa am ay soxna jàppee ko ni dafa am ay doom am droit bëgg sa réew di xeex pour sa réew jar ñu tëj la kaso ngay sonn nii lot di ci nar a ñàkk sa bakken metti na kon lundi bii coordination départementale yi ñu am yëpp yu la ñoo ngi lancer un appel à la mobilisation nationale ku nekk na déposer lettre d'information fi mu ko war a déposer parce qu'il faut observer trois jours ñu xaar lii di ñëw le 17 bii di ñëw nii le 17 nag seen plan la ñoom ñu ngi ciy wax waxu Cour suprême CEDEAO tamit war na joxe verdict am li ñu yaakaar mooy ni o dina respecter dina dëggal dinañu joxaat dëgg comme ni ñu ko Sénat joxee comme ni ñu ko tribunalu Ziguinchor joxe moom la ñu yaakaar ci moom moo tax mobilisation boobu am solo lool te ñaari objectif la benn bi mooy wax juridiction yooyu yëpp opinion nationale ak internationale ni lii kat la ñu espérer suñu dëgg boo xam ne am nañ ko ba pare parce que naa jox nañ ko ba pare Sénat jox nañ ko ba pare li ñuy espérer simplement mooy ñu dëggal ko renforcer ko wante le 17 boobu dañu bëgg set mobilisation aussi pour que Sénégal yi yëpp mën mënti nekk nga mën a crier à la justice sociale say droit ni lii dootu fi amati nga taxaw tamit xeex. ni élection bii di ñëw élection na élection présidentielle bi mais elle est cruciale elle est fondamentale te nii le jeu est en train d'être faussé man nag bugguma nekk ci réew joo xam ni de façon hasardeuse lay tànnee suma président de la république la chose est suffisamment sérieuse l'arbitre doit être bien choisi te le jeu est complètement faussé te Macky Sall kenn du ko bàyyi mu continuer noonu l'appel est lancé à la mobilisation que les 46 départements déposent leur lettre d'information que les militants des différents partis que la société civile que les Sénégalais jigéen góor mag képp koo xam ni mbir bii naqari na la képp koo xam ni ragal nga Sénégal yoon bi mu jël di emprunté nii nga taxaw bis boobu bokk ci mobilisation ko googu l'indifférence est en train de tuer le Sénégal te kenn amatul droit être indifférent par rapport à ce qui se passe di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla yàlla dimbali Sénégal politique dafa metti ngeen baal ma yenn saa yi leen rek laa bëgg mooy bàyyi politique ndaxte képp ko sol casquette politique sa wax d'office ou d'emblée dañuy jàpp ni kii du wax dëgg moo tax mu metti moo tax sooy jooy sax pour xale yoo xam ne ñu ngi dee ñu ne la waxu politique la sooy wax même pour les pauvres maintenant su dee politique a koy wax kenn déglootu ko mais moi je viens de l'intérieur Je sais aussi ce qui se passe ici. Les Sénégalais souffrent. dafa metti lu ñuy dund te may mun a ñii di voyager di dem demuñu pour des questions économiques dañu dem simplement par rapport à la question du sens mooy adduna noo koy gisee fi ngay amee sa ngor sa dignité kenn du la tëj kaso tes talents sont libérés tu es créatif tu es menuisier ñu jox la cër bi gëdd bi tu es étudiant tu prospères katu jën nga tu réussis loolu la nit ci chercher aujourd'hui c'est ce sens-là malheureusement qu'on n'a plus dans ce pays un pays qui était magnifique un pays où on s'exprimait librement librement da ngay taxaw kële ngeen bokk même famille vous avez des positions différentes dans des partis différents